ah lii di jaaro bi loolu secret la boo xam ne secret bu baax la secret bu am njariñ la secret bu dimbale doomu aadama ci dundam la ndax bari na ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi ci ay tolof xamuñ lan moo leen ci dugal bari na ay doomu aadama yoo xam ne eh, bañ juddoo ba léegi musuñu am bànneexu taraanga bari na ay doomu aadama yoo xam ne seen am-am du toog ci seen seeni loxo am na ñoo xam ne balaa ñuy am faw ñu sonn wala ñi nga xam ne seen yaakaar dafa faral di tas nga xam ne lépp loo xam ne ñu ngi la ko dig bés bu duggee ci sa nopp rek loolu moom pare nga ci wala nga am na ci ñoo xam ne doomu aadama yoo xam ne euh, seen alal dafay tasaaroo lépp lu liggéey ba dara desul lu ñu am ci yaakaar xëy bés day xëy rek ñu tegg ne loola yàqu na wala nga nekk nit koo xam ne euh, da ngay nekk ci place dafa liggéey waaye doo fa toog am na ñoo xam ne buñ nekkee ci place di fa liggéey njëlbeen gi dañ leen di jox bopp waaye bu ñu demee tuuti rek nga gis ñu wan leen naw te duñ xam lan moo ko waral am na ci ñoo xam ne pour ñu am dara il faut ñu liggéey ba bëgg dee te buñ ko amee duñ ko jëriñoo te loolu yëpp ay gàllankoori doomu aadama la yoo xam ne lenn li cat daf koy def lenn li rab daf koy def lenn li tëju daf koy def umu am na ñoo xam ne dañuy tëju total kenn mënut leen defal dara lu ñu gis wala lépp lu jublu loola nit sax buñ ko yaakaaree ba dem ci moom sax buñ demee fekk kooku nekk ci ay jafe-jafe wala sax ñu nekk nit ñoo xam ne yow boo leen diggee ne dinaa leen defal dara ci gannaaw boo leen ko diggee rek ci diggante bi balaa ngeen ko defal rek da gis ne yow say mbir dafay nekk ci ay kale-kale loolu dafay am ci ay nitam képp kuy werante secret baax am am na amul dafa fekk dajee guloog secret boo xam ne wér na wala secret boo xam ne gis nga ku ko xam ne am na ko mu nekk lu ko jëriñ yàlla da macha allah alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ci loolu li nga may wax noonu muy wàllu nangu ak wàllu ijaaba loolu am na da loolu nit ki faw mu sakk ko faw mu góorgóorlu ci faw mu jub faw mu reyante pour mu dëggu pour li nga xam ne moom mooy euh, wàllu lijaaba boobu mu mën ko am moo tax yàlla may taw féex ci suñu wàllu jaaro bi alhamdulilah maa ngi sant yàlla ci télévision ak ci rajo ak internet man maay Cheikh Omar Diop bi njëkk a wax jaaro ak ndombo ci télé ak rajo télé boo mënti dem nag man waxuma bu bi kii que ce soit nag télé bu mënti nekk nga vérifier ci historique télé télévision bi nga xool donc loolu yàlla moo koy may nit gannaaw boo xamee ne wax naa sama jaaro bi wax sama ndombo bi ci la nit ñëpp jógee nag ku nekk taxaw jaaro jaaro ndombo ndombo mais c'est pas la même chose jaaro yi duñu benn ndombo yi duñu benn